bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala asrafil anbiyai wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuri lfahmi waftax calayna bi maxrifati lcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaina rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin mbokk yi bàyyi xel ci seen rajo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee suñu borom subhaanahu wa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 di nuyu soppe almisbaax yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci fajaru dimanche yi nga xam ne léeg-léeg ñu waxtaane ci lu jëm ci wàllu ñaan ak yi nga xam ne moo ci aju te mu soxal lool ñu bari ci ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel waaye ab jullit moom digganteem ak boromam subhaanahu wa taala daa bokk ci buum yu dëgër yi ci dox mooy buumuk di ko ñaan ndax day tegtale ak déggal ko akuk nangul ko waaye itam day tegtale wommatu ñeel borom bi subhanahu wa taala yal nañ ci daje ngërëmam mu mel ne e, gëjoon nañoo ñëw sax indi ñaan yoo xamante ne dañ ñaan nañ ko jëfandikoo nii waaye léeg-léeg it e, day mel ne li ciy ñëw ci ay riwaaya ak i net lii yëpp damay faral di wax ne bu nit mënta jëf yëpp loo ci tànn mu doy e, danaa ci indi tey lenn ci luñ ciy waxtaane waaye rawatina nag lu jëm ci tudd yàlla ndax tuddu yàlla dafa mel ne day yóbbaale lu bari te loolu moo yóbbaale li ñuy wax ay askar rek yi nga xam ne moo ci aju ndax borom bi subhaanahu wa taala dañu koo digal waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba noppi itam moom itam soññee ci soññee yu bari ndax daa wax ne koo xam ne day dund te kooku kat doonut kuy tudd yàlla suñ borom boole ko seytaane seytaane yi ñëw def ko xarit ànd ak moom mën naa doon jinne seytaane yi jinne mën naa doon seytaane nit ni ma la ko waxe woon démb moo tax borom bi subhaanahu wa taala daa bëgg ñu di ko tudd di ko kañ di ko bàkk waaye di ko ñaan ndax ñaan yàlla daa ànd ak li nga xam ne mooy tudd yàlla danaa ñëw ci ngëneel yi danaa ñëwit ci léemaay yooyu nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxe na ko fu bari ndax jëfandikoo ko day tax nit ki di dund di tudd yàlla te loolu day tax seytaane sori ko wa man yaxshu an dikri rahmaani nuqayyid lahu shaytaanan fa huwa lahu xarin kon dund ba noppi seytaane ñëw taqoo ak yow def la àndandoo ëpp naa def ndax bu boobaa mu xiirtal la ci loo xam ne safaan bala baa mu dox sa digganteeg nga am jàmm ndax jinne yi da ci am jinne yoo xam ne jinne yu gëm waaye am ci yoo xamante ne ay kàccoor lañ ni mu amee ci biir nit ñi itam yooyu nag buñ taqoo ak nit ci yàqal ko la dëkk waaye daa bokk ci li koy tàqaleeg nit mooy tudd borom bi subhanahu wa taala suñ borom daa bëgg ñu di ko tudd ñu di ko kañ di ko bàkk moom ba ci jamonoy xare sax bañ ca nekkee suñ borom da doon digal jullit ñi naan leen na ngeen di tuddu yàlla na ngeen may tudd isa laqitum fiatan fasbutu waskurullaha kasira bu ngeen dajeeg kuréel ya ngeen jàkkaarlool ci xare ya yàlla ne na ngeen sax na ngeen dëgër waaye na ngeen may fàttaliku lu bari na ngeen may tudd tudd yàlla ngëneel yu baree baree ci nekk ngëneel yu baree ci nekk moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadisu abi hurayra ba mu ne woon sabax al mufarridun al mufarridun borom bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñooña day ñu raw lañ raw nañ raw nañ seenu maas laaj bi ngay laaj sam xel moom la ko saxaaba yi laaj dañ ko wax ne ko wamal mufarriduuna ya rasulallah ñooñu ñooy ñan mu ne mooy tuddkati yàlla yu góor yi ak yu jigéen ñi ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla lu bari doonu góor ak aw jigéen azzakiruna allaha kathiran wa zakirati alayhi salaatu wasalaam nee na ñooñu moom raw nañ yal nañ ci yàlla boole kon tudd yàlla daa bokk ci lii tax raw ki nga xam ne mooy abdullah ibnu busr radiallahu anhu nee na jenn waaye daa ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko sharia yi nga xam ne dañ koo yoonal ci ñi ko def yu bari la ma bëgg nga tànnal ma loo xam ne dama koy taqoo du ma ko ak moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko saw làmmiñ mu bu fendi bu mu wow mukk ci tudd yàlla foo toll rek del tudd yàlla saw làmmiñ bu ci wow waaw bu mu bari looy tudd yàlla abi Moussa al Ashari nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na misaalum ki nga xam ne day tudd boroomam ak ki nga xam ne du tudd boroomam mi ngi mel ne kuy dund ak ku faatu kon am na kuy dund koo xam ne day dundandoo nit ñi waaye deena bu yàgg ndax aw làmmiñam du tudd yàlla du ko fàttaliku waaye ki nga xam ne nag day tudd yàlla moom daa mel ne mi ngi dund masalu lladi yaskuru rabbahu walladi laa yaskuru rabbahu mathalul xayyi wal mayit mi ngi mel ne misaalum kuy dund ak ku faatu rek tudd yàlla googu lu yaatu la moo tax ki nga xam ne day toog ci ab jotaay di ko tudd buy tëdd ñu ne ko ko tudd buy buy buy muy def rek muslaay yooyu ñu lay wax ak ñaan yooyu ngay wax yaa ngi tudd sa borom subhanahu wa taala moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis bi nga xam ne abi hurayra moo ko nettali mu ne man qaada maqaadan lam yuskarillaha taala fiihi kaanat alayhi min allahi tirra nee na koo xamante ne toog na ci ab jotaay boo xam ne tudduñ fa yàlla daa mel ne ma ngay am bàkkaar digganteem ak boroomam koo xam ne tëdd na tëraay boo xamante ne ba muy tëdd tuddul yàlla naka noonu naka noonu tudd yàlla kon ngëneel yu baree ci nekk léegi nit ni ma tudd yàlla mooy lan ndax mooy laa ilaha illallah wala mooy subhanallah wala mooy allahumma ma ne ko yooyu yëpp tudd yàlla la ndax ngëneel yi daa bari ngëneel yi daa bari boo demee ci saxiixul buxaari ak muslim da ngay fekk ñu indi wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne koo xam ne wax na subhaanallahi wa bihamdihi ci bis bi téeméeri yoon suñ borom jéggal ko mboolem ay bakkaaram donte bakkaaram yi dafa toll ne duusi géej gi waaw léeg-léeg nag su ma waxee ne ñaan gi day maye xaalis da ngay ci yàlla da ngay gis ne message yi day bari lool ci baaxe ma ko oustaz damaa bëgg a ubbeeku baaxe ma ñaan guy tax a fay say bor léeg-léeg nit woola ne ñaan guy tax am bayre ngeen baal ma ñaan guy tax li may lijjanti sotti yooyu yëpp nag lu baax la ndax doomu aadama soxla na ko waaye nag ñaan guy tax ñu faral la say bàkkaarit am na solo ndax ñaari dund am dund gii moom yàggut dund gi yàggut ñu bari ci ñu soxla yooyu teree nelaw seenu dundu xaaj na wala sax mën naa am weesu na xaaj waaye nit ki du ko xam xamoo kañ ngay dem li gën a wóor nag te dal xel te borom bi subxanahu wa taala digge ko te ne ku ñëw mel noonu matériel la mooy ku ñëw te ëndaale woo ay bàkkaar te bàkkaar fii lañ koy raxase ci àdduna moo tax gannaaw doomu aadama daa ànd ak i ci ay jëfam ak i ñàkk tey yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ñu yónni muy campagne ngir bëgguñu ñun ñëpp ñu dugg aljanna nee na ci bis bi boo ci waxee subhaanallahi wa bihamdihi téeméeri yoon. ñu jéggal la maanaam ñu faral la sa ñaawteef yépp donte sa ñaawteef yi dafa toll ne duusi géej gi xanaa nag eh, loolu moom jërut jërut jërut jërut sax nag di bind ndax yomb naa mokkal yomb naa jàpp ndax ñaari baat la wala ñett subhaanallahi wa bihamdihi jeex na subhaanallahi wa bihamdihi nee na ku ko def ci bis bi téeméeri yoon ñu baal la sa bàkkaar yépp donte sa bàkkaar yi daa toll ne duusi géej gi waaw jël ko nañ ko jël ñu ànd nekk ci ñaan daje cee ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala loolu dong moo tax ñu indi ko man qaala subhaanallahi wa bihamdihi fi yawmi mia marra xattat xataayaahu wa in kaanat mithla zabadil bahri nee na ñu faral ko ay ñaawteefam donte tolloon na ne duusi géej gi ci bari waay mënta toll noonu waaye lu mu bari bari bari ñu ñu ñu jéggal ko bàkkaaram yépp léeg nag boo ko waxee nit ne la suba koy def wala ngoon waaye ci bis bi lañ la wax ci bis bi 24 heures yi daal boo ko ci defee téeméeri yoon téeméeri yoon dugalaatuma ci lenn nag kon bu ci dugal dara yewit bul ma wax gannaaw julleeg boo koy def da ngay tëdd ak ndax man nga koo dagg wax ak yooyu yëpp sa mbirum bopp la waaye alayhi salaatu wasalaam daal ci njàngaleem nee na ku ko wax téeméeri yoon ci bis bi ñu jéggal la say ñaawteef yëpp ñu faral la ko donte dafa bari ba tolloog duusi géej gi kon ma waxaat la ko subhanallahi wa bihamdihi loolu ngay wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bi subhanallahi wa bihamdihi ba muy téeméeri yoon yal nañu yàlla jéggal sunuy bàkkaar kon kooku mi ngi tudd yàlla te taxoon na ko te lii bëriwut te ci bis bi mën nga koo def téeméeri yoon baat yi nga xam ne moo ci ànd day baat yu yéeme muy baatu subhanallah ak baatu alhamdulillah waaw baatu sabbal borom bi subhanahu wa taala ak sant ko ñaari baat yooyu dafa yéeme lool moo tax euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadisu abi hurayra beneen mu ne ñaari baata ngi nii yoo xam ne dafa oyof ci làmmiñ waaye dafa diis lool ca balance ya waaye dafa neex lool borom bi subhanahu wa taala allahu akbar yonent bi nee na ñaari baate ngi nii yo oyof ci làmmiñ nga xam ne nit ki da koy wax rek jàll subhanallah ak alhamdulillah waaye nee na ñaari baat yi ñaari baat yi eh, wala ñaari baat yii nee na dafa diis gann ca balance ya ëllëg yowmal xiyaam buñ ko tegee poids yu bari lay lay peese xam nga am na loo xam ne day diis léeg-léeg nga nga ñëw ci kër gis walisu ngande nit ñi di ko diri walisu mel ne daa diis gann am eh, af waaw af caag mooy saak su ndaw soo xamante ne mën nga koo kepp ak sa ñaari baaraam waaye fi mu ne boroom mi xam li ne ci saak su ndaw soosu maanaam nga jëloon wëlis waa kër ga ak oto baag yëpp moo ko gënal saak boobu nga jël ko waaw wala wala boog caag soosu nga jël ko loolu lay tekki nga xam ne kon dañ ñaan ab saaga ngi nii bu ndaw a ndaw a ndaw bu oyof wala boog ab saaga ngi nii bu oyof nga xamante ne nit ki mën na koo romb di ko kajji sax te du xam dayo bi ci nekk waaye nag bu diis gann gann gann gann gann gann ndax lan waaye nag bu borom bëgg lool bu borom bëgg lool ndax lan dafa diis gann mooy dafa am valeur dafa am valeur boo demee ab sega ngi ci boo xamante ne nii boo uh, kenn xamut la ca nekk ci alal waaw ab sega ngi te dañ ko bind rek xusi xusi ko te mën naa am sa wëlis wu diis gann wi ay yëree ci nekk waaye yëree yu tilim la <laughs> waaw mën naa am yëre yu tilim rek la bagage ay bagage a ci nekk yoo xamante ne Eh, boo wecci ko woon lay jënd ci fukkam jënd ci fukkam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee ñaari baata ngi ni yoo xam ne baat yu oyof ci làmmiñ la waaye yu diis la ca peese ba dafa am loo xam ne nit ki da koy xool mu nekk quantité bari lool ak loo xam ne da koy xool mu néew waaye am qualité am loo xam ne day boole am quantité ak qualité est-ce que waaw la demee bu ñaari baata ngi nii yu oyof toy ci làmmiñ waaye diis gann Eh, ca balance ba ëllëg yow mal xiyaam waaye xabiba taani ila rahman waaw suñu borom subhanahu wa taala it sopp ko lool muy baat yu ko neex ñaari baat yooyu mooy lan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim allahu akbar ñaari baat yi nekkul sax di wax ay ngëneel yi topp ci ginnaawam ndax rek ngëneel ya daa yi ba ba mënoo koo lim ba mënoo lim num toll yow mi bëgg di tudd borom bi subhanahu wa taala saw làmmiñ di ci tooy ñaari baata ngi nii yoo xam ne lim boo ko def doyut joxuma du ma la jox benn lim waaye na bari saa yoo defut dara nang ca nekk bu ay waxi caaxaan ñëwee ak waxi mbóorent nga bañ caa dugg del wax subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim hey li ci nekk kenn xamul num toll kenn xamul num toll maanaam eh, eh, mi ngi aju yow ci li nga bëgg rek li nga ci yéene rek lépp loo ci yéene bu dee looy ñoddi insha allahu taala day ñëw bu dee looy dàq inchaa allahu taala borom bi dala koy soril dala koy soril subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim alayhi salaatu wasalaam nee na ñaari baat yi day xafifataani alal lisaani waaye shaqilataani alal miisaani xabibataani ilal rahmaani waaw ñaari baat la yoo xam ne dañoo oyof toy yu ci aw làmmiñ waaye ñaari baat yu diis gan la ca peese ba ëllëg yowmal xiyaam ñaari baat la yoo xam ne Euh, borom bi subhaanahu wa taala bëgg na leen lool ñu ne yan ñaari baat la mu ne subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim est-ce que ma baamu waatal la ko bindal loolu yomb na subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim lim ñi muy rëcc du bari bu fekkee rëcc na la it euh, boo ñu envoyé message ci 77 439 04 07 incha allahu taala ñu jàpp lente ci te yàlla tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadisu abi hurayra beneen daa wax ne euh, la an aqula subhaanallahi wa ilaha illa allah wallahu akbar ahabba ilayya mimma talaat alayhi samsu yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na suñ borom nee na jaam bi wax subhanallah wax laa ilaha illa allah wallahu akbar nee na moo ko gënal mboolem li jant bi di tiim maanaam bi jant bi fenkee borom bi subhanahu wa taala dafa bëgg kon jaam bi di ko bàkk dafa bëgg jaam bi di ko tudd jaam bi di ko tudd mbokk yi ñetti ñetti yëfa ngi nii yoo xam ni yëpp tudd yàlla lay tekki gi ma doon waxtaane léegi te zikr lay tekki te dafa war a bari wala dikrullahi akbar dafa war a bari dafa war a saf sàpp ci saw làmmiñ dafa war a saf sàpp ci saw làmmiñ ndax misaalum kii tudd yàlla ak ki tudd yàlla wax naa la léegi ne alayhi salaatu wasalaam nee na daa mel ne misaalum kuy dund ak ku faatu kon subhaanallahi wa bihamdihi yonent bi alayhi salaam nee na ku ko def téeméer yoon ci bis bi ñu faral ko ay ñaawteefam yépp donte ñaawteefam ya daa bari ba tolloo duusi géej gi vague yi vague géej gi ci bariwaay suñ borom baal ko yépp ca saasa beneen bi ci topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ñaari baata ngi nii yu oyof toy ci làmmiñ waaye diis lool ca balance ba ëllëg yomal xiyaam bu ñu peese say jëf léeg-léeg ñu teg sa julli léeg teg koor yi léeg-léeg ñu teg nangam ngay xool ñaata ton nga am wala ñaata kilo nga am am ñoo xam ne boo muytut ay garam la am waaye ala kulli xaal yooyu yëpp ñu koy teg ba mu yàgg rek ñu ñu teg tudd yàlla yi ne cas subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim teg ko rek mu nekk ay toni toni toni ton yokku yokku daaneel balance bi waaw loolu aw yiw la kon na bari subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim beneen bi ma waxaat léegi tam ñetteel ko mooy baaxiyaatu saalihaat gi nga doon def rek subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar waaw riwaaye bii daa amul walhamdulillah waaye borom bi subhaanahu wa taala day big ci jaam bi su fekkente ne mi ngi koy wax su fekkee mi ngi koy wax waaw dafa bokk yi muy boole doon kaaraange ba noppi doon aw yiw doon aw doon kaaraange ba noppi doon aw yiw doon aw yiw tudd yàlla kon eh, ci baati sàbbali yeeg eh, ñett a ngi noonu yoo xam ne ñetti dog la na ko jàpp bu baax abu musa al ashari radiallahu anhu nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne ndax duma la tegtal daf maa wax ne nee na moom abu musa xaala li nabii sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa moo ma wax ne ma ndax duma la tegtal kanz min kunuusil janna benn trésor ci trésor yi aljanna yi waaw benn trésor ci trésor yi aljanna yi loolu bu ko waxee mooy lu lu am solo loo xamante ne aw yiw réeree ci nekk nee na ma ne ko balaa yaa rasulallah aha kay yow mi yàlla yónni nee na yonent bi ne ma del wax waxal laa xawla wala quwwata illa billah allahu akbar xoolal baat yooyu rek bis per nga di ko wax yow la xawla wala quwwata illa billah yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na trésor la ci trésor yi aljanna yi maanaam la ca nekk ci aw yiw kenn kenn kenn xamul num toll yow mi bëgg di tudd yàlla bañ saw làmmiñ fend ci leneen a ngoog leneen a ngoog bari na luñ koy wax nag waaye am na ñoo xamante ne jéemuñoo jàng niñ koy waxee boo ko bëggee nag def mu bokk ci say zikar ci say askar nanga fexe niñ koy waxee nag waaw laa xawla laa xawla wala quwwata illa billahi hmm. laa xawla wala quwwata illa billah waaw hmm. waaye bul ko bul ko wax waxu mbedd rek ndeysaan ñoom maam ci ne caam fi mu ne mën nañ ko waaye boo moytu nu leen neex rek lañ koy waxee waaw <laughs> ndeysaan euh, euh, def ko sama sama digganteeg mère Fall sama yaay léeg-léeg mu ñëw rek ne ko yaay ndax man nga nangam coow li danaan ko ru ci kër gi bu ko waxee pare ma ne ko yii yow kay teen dàqulaa jàng bu ko defee sëtam yu ñàkk taalibe yi di ko kaañoo waaye dafa am mag ñi mag dañoo baax ndax réew mi seen làmmiñ dafa làggi woon ci di tudd baat yooyu waaye nag euh, desitu jeexitalu waxinu ajam wi day def ci làmmiñ yi day def ci làmmiñ yi waaw la euh, mbokk mu baax waxoon genn kilifa moo doon jàng lenn ci aaya alxuraan yoo xam ne dañ koy ñaane ñu di ko wax xam suuna xaaf waaye njàng ma daa tooy xipp rek bam noppee ma ne ko euh, am ku cay ree ndax jàpp ne sëriñ ba maxaarijul xuruf ba daa def ak yu demee noonu mu ne ma fi mu ne eh, ki koy reetaan maanaam ijaaba gi ci kii di am ci li ngeen di jàppe ay yàq nga xam ne moom mënta wax wala daalin wala wala waaye wala laalin lay wax c'est tëtëtët waaye borom bi da ciy def barke boo xam ne day jéggi dayoo maanaam yàgg na cee faj ay yàgg cee woo boromam mu di ko wuyu mu yàgg cee ñaan mu nangu ndax suñ borom fi muy fekk jaamam bi li ma jublu ci nettali yooyu mooy bëgg laa wax ne la bul découragé bul ne mukk nangam ji mënuma ko wala sama làmmiñ daa taq wala dara jéemal jéemal mbokk yi ku jéem man ku jéem man man loolu moom lu ma mas a gëm la gëm ne ab jullit daa war di jéem nit daa war di jéem waaye eh, sama góor gële ca njaarim maam wu Ba yal na ko yàlla yokku wér ne ma daal bu dee am na loo xam ne yàlla da koo tële subhanallah te tëlewul dara ma ne ko ah mu ne ma mooy àggaleel lu ñu tàmbaliwut waaw lu kenn tàmbaliwut yàlla ñëw àggale ko nee na loolu moom yàlla da koo jomb ku bëgg yàlla àggale la da ngay tàmbali da nga cay nekk te di ko woo waaye Mouhamed Tine mii nga xamante ne moo a yéem ci weer wi euh, di silmaxa gu baax googu nekk fële ca euh, caajaay seeseen ga ca wetu caajaay nga xamante ne moo mokkalal boppam alquran loolu lu la sëñ bi silmaxa goo xam ne nee na dafa jàpp ne rek comme lim jot a mokkal lépp da koy dégg ndax gisu ko kon alxuraan jéet war na koo mën a déglu di ko mokkal mu dem jënd téléphone bu 3500 jënd carte mem mémoire am def lu ca alxuraan ji teg nee na bu ma dégloo aay ñetti yoon fay euh, taril ko sama bopp répété ko bis bu set ma am lu mat fukki aaya bu semaine bi jeexee ma boole euh, juróom-ñaar fukki aaya yooyu tari ko <laughs> daal di continué waat ba kaamil bi jeex tey jii mu ñëmee ñëw toog ci rajo nga di ko cuq muy tari mbokk yi ku jéematul ya jéemut waaye yàlla wane na ne ku jéem mu àggaleel la yàlla na ko yàlla jàppale nee naa ko day eh, yow rek lañ war a wone yow lañ war a yëkkati ba ca kaw bu doon ne ba jamono di neex la ku mas a def lu mel noonu danañ la yëkkati wane la ba ca kaw waaye da nga am ay teraanga yu du dakkati waaw ma ne ko Mouhamed fi mu ne sa soxla dëgg-dëgg lan la mu ne ma néeg bu ma dëkk ndax am naa soxna maa ngi njaboot laa ilaha illallah sama àdduna sépp tukki waaw sama àdduna sépp tukki nga xam ne eh, bu ma bu ma ko amoon eh, am mbaar sax laay ci buntu bi toog ku ñëw ma jàngal la alxuraan te yàlla tax ndax eh, ni ma jàngee di wax nit ñi di dégg jàpp naa ne mën na maa wax nit di dégg moom it ba for ci dara kon ku ñëw ñu jàpp jàppalante ci yal na ko yàlla yombalal te yombalal jullit ñi nga xamante ne teraangay alxuraan seen teraanga mhm. mu mel ne tudd yàllaa ngi noonu tuddu tudd yàllaa ngi noonu mbokk yi joxe naa ci ay ay ab lim tey Eh, bu ñu yàlla may ñu dund ba dimanche jee di ñëw danaa ñëw ci yeneen yoo xam ne day ànd ak ñun nag ci ko dem bay tëdd na ngay léemoo ku yeewu la ngay wax ak ya nga xam ne moo ci aju waaye suñ bindu tey baat yi woon baat yi la woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku wax subhaanallahi wa bihamdihi ci bis bi téeméeri yoon ñu jéggal ko ñaaw téefam donte daa tolloog duusi géej gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaari baat a ngi nii yu oyof ci làmmiñ waaye diis lool ci balance yi ëllëg yow mal xiyaam suñ boroom tam bëgg ko lool muy subhaanallahi wa bihamdihi subhaanallahi alazim yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bokk na ci li gën a neex suñ boroom ci kaw suuf muy subhaanallah laa ilaha illallah ak allahu akbar waaye itam ku baax ki abu musa al ashari nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ko ndax du ma la tegtal trésor ci trésor yi aljanna yi mu ne ko axakay mu ne ko del wax laa xawla wala quwwata illa billah yal nañu yàlla boole sàmm ñaan lu am solo la ngànnaayul jullit la nii daa bokk ci ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon jàngalee ñun tam ñu indee ko joxee ko noonu ñaan ci daje ci ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala daan nañ def bu ñu waxtaanee fajaru dimanche bàyyi laak suñu numéro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 ci seen jotaay bii di almisbaax asalaamualeykum wa rahmatu